بعد آل والأسد من نظن فيه إلهي إلى المختار مختار وزلفا وسلم بتسليم عليه وسرفا إلى المنتقى أوزي زورا وختما ومني تقبل خدمته ونعزما أقول إلهي صل أبي وسلم على المنتقى بلزمن وموقفي لحوق النور على الفار ابن في نواني وسيب جمالا رائقا في جواني وهبت في كوني سرورا لعلي وسعدي إذا يلا مزن رباي يقول مزيمة مغنم وإني إلى الجنة من مزن منم لفتو لموت من المهو مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم رسول الله الإمام كريم وزير نزير منه من نفي والدويب سخالي بجلسه من والوجاه بكوني خديما للذي قبل فرجا سلمت من الأولاد أنت بلايوي سرين سالي جمال جواتنا jumaa ku sopp Sëriñ Saliou Mbacké ne maa ngi lay fay moom maa sœur maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la gis si suba nga ñëw après nga demaat waaw booy lan moo seen waa da nga lijjanti business tey baax waaw non dama am sama goro bu génnoon àdduna ñu ko doon defal quarantième jour am fa laa nekkoon ba ma fa jógee tamit ma ñëw dellu si waat Omar suma rakk it su ma rakk bu sës si man rek rëkku ma Omar du def dara te yëgalu ma lu ma xalaat wax ko dina ma nangul kon loolu cër la mënoon a ma bañ a jox cër boobu mais taalibe gu mu doon ak yar bu mu am ak respect bu ma ak Serigne Touba nu bokk moo tax loolu yëpp def kon bésam sama bés la barke deen ba may tudd daanaka lu ne def na ko fa may sama doom mu nekk ba Amérique may tudd fii lu ne def na kon Omar suma rakk la suma xarit la suma lépp la séq mais waxuma la làmb waxuma la yeneen sax mais yëq na ay yenn business yi nga xam ne dañ koy doxal te yàlla ak Serigne Touba kon boog ñu ngi koy ñaanal yàlla mu tuddee Serigne Saliou ñëpp xam ne Serigne Saliou nu mu mel ci kër Serigne Touba ak nu mu liggéeyal Serigne Touba kon ñuy ñaanal suñu doom bi yàlla na màgg ba roy turandoom ci barke Serigne Touba di gërëm ñëpp sant mais da ngay xaar da ngay xaar xam nga ay nitu làmb lañ mënuñoo wax ak yéen fii te waxuñ ci làmb ji waaw actualité bi mooy ne mooy Modou Lo problème mu caché muy 80 ñu nekkee ñu fay ko cent ñun daal li ñuy wax daal mooy Ama ak Modou Lo kenn ku nekk jar na cinq cent millions ñoom ñaar ndax dañ koo prouver wane ko si laa mën a ko si lépp waaye ñun nag ay doomu Pikine nañu lu lu mënti am nit suñu ginnaaw rakk yi nekk mii ginnaaw Ama Balde ñu ngi ñaan yàlla yàlla na combat bi taxaw ak jàmm ci barke Sëñ Tuubaa. mais Baboye tey Ama Balde mu toog bëriwul daaw. Ama ren bëriwul def ci moom dara. Ama mënu ko ci làmb parce que Ama li وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma di guray fi ma fi ñamme di waykat bu mag ba woon kada tagg baayu saaliw maami bas bi leen su may tagg sëriñ saaliw bu may tagg sëriñ saaliw su may tagg sëriñ saaliw